wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 lay nuyu nuyoo bu yeeyoo ak sama xaal di toxal nuyoo boo xam ne eh, sa mbokk moo ñu ko jox di sa soppe ni bàyyi ak maam yi nekkee woon ay mbokk nekkee ay soppe démb muy sama xadal xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi. Eh, ibnu mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu boole ndokkeel ak itam ngërmande ci passé ndokkeel li mooy munaasaba bi nga xam ne suñ doom Cheikh Tidiane wax na ko léegi xew-xew bi nga xam ne lislaam lépp ko moom ndax ndamal lislaam la ndamal lislaam la ndax ki yàlla tegoo nattu boobu mu attan ko te enu ko te nangu ko te muñ ko te yàlla lim diggee ci yooyu muñ ñi ne ne mi ngi ànd ak ñoom maayatullahi nag képp ko am dara mënu laa suufeel euh, moo tax mu ne bés bi bés bu rëy la ci ñun ndax diggante kër alaaji Abdoulaye ak kër maam Cheikh Ahmad Bamba duut ñaari kër benn kër la waaye kër bu yaatoo dafay bëri ay buntu kër te loolu cosaan la loo xam ne lu yàgg la buñ ci duggoon danañ wax lu bari waaye bu ñoo jël sa ndax xam nañ fi nga fi nga toll fi mu nekk nii ci ay xat-xat mu ne ngërmande yi mooy euh, nattu yi nga xam ne yàlla wàcce woon na ko ci pays bi jamono yi passé te ki ci njëkk jiitu muy Sayida Fatimatu Zahra nga ebal Cheikh Mouhamadul Bachir mu bàyyeekoo fii ak délégation bu mag a mag a mag ànd ak ay kàngam yoo xam ne yu bàyyi koo tubaa yoo xam ne xam nañ ne fu ñu teew yaa fa teew mu ñëw wax fa wax yu jot yu rafet ak yee ca tegu teguñ ci weer ndax diggante moo Seydi Cheikh Ahmad Tidiane weer benn fan la nga dellu defati même délégation mu dellu ñëwati nee na xatawaat yooyu mi ngi koy tes miin bu baax te mi ngi koy mubaaraka mi ngi koy gërëm ndax loolu te tegtaliwut dara lu mooy ne yaa ngi sàmm couleur gi nga xam ne eh, yaa ngi ko doon ne ci maam yi ak ci bàyyi te lépp masa rafet ba ak si ci yow E, moom nag mu am xaasib mushtarak boo xam ne moo la booleeg moom ku ne xam na ne yow rajulul ilm nga xam nañ fi nga teg xam-xam ak ni nga ko itteewee moom it mu am nattu ci xam-xam moom ku ko xam xam ne subaam ak ngoonam lépp xam-xam la culture la ci lay xëy ci lay gont moom bugut benn wétal sax bu du téere e ngeen tasee ci loolu waaw bëggante ci loolu mu ne mu ngi naw bu baax université bii nga xam ne yaa ngi koy taxawal te mu ngi lay ñaanal yàlla lu man lépp mat ci sa kanam ni nga ko bëggee te yàlla defal la ci ndam loo xam ne ndamal lislaam lay doon loolu nee mu ngi la koy ñaanal yàlla mu ngi lay bàyyi xel mu ne mu ngi lay siiwur bu baax ni ngay ñaaxee ndaw yi ci ñu jàng xam nañ ne diine jii kat diine xam-xam la ndax li ci njëkk a wàcc mooy iqra bon képp koo xam ne yàlla daf la ca dénk masuuliya war ngaa itteewoo xam-xam moom bàyyam téere bokk na ci téere bi njëkk a taarif mooy tabsaratul anam fii anna bon euh, daara ji yenn daara la ñun suñ digganteeg yéen xam nañ euh, fi ngeen ñu teg waaye ñu itam fu kawee lañ leen teg te loolu euh, waxtu bu nekk bés yaa ngi koy feeñal bëggante nañ ngir yàlla mbokkoo nañ ngir yàlla àndoon nañ ngir yàlla tey chaise bi la yàlla taaj tey te yàlla nga fi yàgg lool te ànd ak wér yàlla may la fi ndam loo xam ne dana ko sa a njort nee naa la amul dara loo fi jàng jàngoo fi dara ndax yow liggéey nga ko démb door tey door a ñëw da nga àndoog àndoon ak sa wajur yi la jiitu jàppale leen bu baax ba mu fés lu ne nga def ko ci lu nga daj ko ci e, sa mag yi ñëw nga ànd ak ñoom comme ni nga àndee woon ak sa bàyyi wala lu ko gën a rafet e, ba yàlla teg la fii mu la teg tey te ku du toppee kenn du la topp yonent li muy foor foor foor yàlla sant na ko mu topp am na ay yonent yu bari yu mu tudd waaye lim ko tëjee nekk mooy royal ci ñëw topp leen te ku ne xam na ne mooy sa nga way jëkk ak way mujj waaye gis nañ àndoo bu rafet bi nga xam ne ñoom nga àndoon ak say way dawee eh, ba yàlla teg la fii mu la teg tey mu ngi lay ñaanal yàlla mu ne yàlla yokk sa taxawaay yàlla dëgëral la li nga bëgg sa njaboot yàlla defal la ko te nga ñaanal réew mi xam na ne yaa ngi ci waaye nga ñaanal réew mi surtout ñax na bi nga xam ne tey mi ngi ci réew mi wala balaa bii nga ñaan yàlla teggi ko eh, mu ne loolu daal la waxoon ne ñu wax la ko ci eh, gërëm sant bu baax a baax a baax. sëriñ bi na jërëjëf Niass. amati mbégte na mi ngi amati mbégte mu rëy rëy. Mm, mu ne ci jëf ju rëy ji. mu ne ci waxtu wii. nee na mi ngi am mbégte bu baax a baax. mu ne ci daje gu sell gi. mu nekk ci kilifa bu baax gi kilifa baax yi toog jóge ko ca kilifa bu baax mu ne di suñu bokki biir di suñu bokki biti mu ne axlul islaami bi rek mu ne ëmb na lépp mu ne ñoo ngi koy dund bu baax a baax mu ne ci yéen ndax seen taxawaay diine mu ne di nekk taxawaay diine ju mat sëkk. mu ne yëg na ko bu baax a baax. mu ne xam na ko itam. mu ne loolu lu ñu dund la. mu ne mës sa jóg ci di leen bàyyi xel. ñu xam ne ñoo bokkul lu ñu bëgg. moo ñoo bokk fu ñu jëm. ñoo bokk lu ñu nekk. mu ne dara génn ci diine. dara génn ci lislaam mu ne kon mi ngi am ndépp mbégte bu baax a baax. ci li ñu yàlla boole. te ñu bëggal ko suñu bopp. di ko sàmm. mu ne loolu jataay bi dañuy yeesal rekk kóllëre googu dox suñu diggante muy kóllëre gu rëy rëy di kóllëre yàlla rek nag mu ne moo ngi koy fas yéenee gën a dëgëral rek di ko gës fas gën a sàmm rek incha allahu fii ak mi ngi nooyi rek incha allah nee na mi ngi sant bu baax a baax di sant sëriñ maax yi moom moom mi nga xam ne moo leen yebal mu ngeen jug ci ay tànkam ngeen ñëw teewal ko fii ci jataay bii te mate ko sëkk mu ne xolam sedd na guy mu ne xelam it gën naa dal mu ne mu ne dara mënta dal am xelam lu du sàmm ndono li sàmm li ñu war a sàmm mu ne dara jiitu ci lépp mu ngi ci uxlul islaamiya mu ne xelam mënta dal lu dul xam ne moom koy sàmm mu ne kon ñu ngi sant bu baax a baax mu ne ab soññ rekk la ci moom mu ne xolam sedd na baax a baax nee na mi ngi sant bu baax a baax mu di bëgg lool ci jataay bi mu ne muy ab soññam mu ne ci li nga xam ne moom la bokk bokk ko jublu moom li nga xam ne mooy suñ maçon li mu ne moo ngi bëgg lool ci jéego yi ak jataay bi jërë ngeen jëf fa tabarakallah muy tawfeex